mbokki jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah bisub nganale bisub cant ak sargal sëriñ seex fall mbawoor muudu lukaar bay fall makassar mooy am mbégte di leen yëgal bis bi ko sëriñ seex fall mbawoor di gane si ca makassar mu jamoo ak bunu julee tëbaski ba mu am fukki fan alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru ut bi bu ñu xëyee daañu jàng alxuraan jàng xasiida bernde ci bëccëg génn sëriñ bi dana jaloog taalibe yi amal waxtaan bu am solo guddi gi daayira yi daañu amal seeni barkeelu sëriñ Modou Fall Diop ngumba ngéwal ak soxna Pend Bayti Thiès ñoom ñooy fanaane guddi ga di ci woo mboolem waa Mbawar gi yépp ak waa Màkka Sarr ak bay Fall di ci woo itam Serigne Bassirou Mbacke Thiaray Mbawar di ñaan daal bis boobu képp koo xam ni teew nga fa bur yàlla mi am fay yàlla na la fay ci barke seexul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barke Maam Cheikh Ibrahima Fall làmp yoon wi